indi len ay garab yu muccu ayib kep ko xamanteni da nga yor jangoro yi nga xamanteni mom lay laay bëgg lim dawal nga seti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yo xamanteni garab original la muccu ayib kep ko ko jëfandikoo insha allah da nga daldi taggo mbollem jangoro bo xamanteni nekkon nacc sa yaram hémorroïde bu fekke dang ko yor demal nga seti ko bu ne da nga yor bolotement dawal dem ci gaaw bul ko wàcce new katan nak amu ci morom kep kum ci tet ba njox la ay garabam nga jëfandikoo ko insha allah katan force ngay yor accord euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante nii da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala li nga xamante nii moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi bi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cent cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin سيدنا ومولانا محمد سيد المجاهدين وعلى آله هادنا المهتدين ومن اهتدى بهادهم إلى يوم mbokki téléspectateur ak téléspectatrices yi suivre site bi di Farokh TV fi ngeen mën di nekk tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen ñaanal yàlla li nuyoo bi làmboo yàlla defal leen ko te mooy jàmm ak yërmande ak barke di nuyu suñ caméra bi di Boubacar Bari tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla waaye suñ technicien Aliou Demit tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu nga xam ne tey site bi bu taxawee ay yitteem ak i góorgóorloom ci la ko yàlla dimbalee ba mu taxawal lu mel nii seen mbokk Modou Mokhtar Diop dellu si na ci seen émission bi di suumu tasihu muy war leen ndax ngeen wér tabaarakallaahu wax naa la ren émission bi dafa dafay ñaari xanam bii day faj feebaru xool yi xel yi beneen bi nag mi ngi faj feebar yaram yi bu dee feebaru xol yi xel yi la soo boobaa Modou Mokhtar Diop ngeen si xandat mu xooli ayaay alquran yi ak addis yi tabaarakallaahu ñoo joxe ko ngeen sifur ko jëfandikoo ko wér waaye bu dee feebari yaram yi la nag moom kooka docteur Cheikh Ousmane Touré tabaarakallaahu moom ngeen seeti boo dem feebar boo xam ne yaa ngi koy jàmbat sa yaram rek demal nga seeti Cheikh Ousmane Touré su ngeen bëggee xam Cheikh Ousmane Touré nag tabaarakallaahu ñu ngi wax suñu waaru si ñu dugalal ñu ko ngeen ànd ak moom ci publicité bi numéro. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Faro TV. ni mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré dellusiwaat na fii ci ndakaaru indil leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom laay bëgg lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo insha allah da nga dal di tàggoog mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon na sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga koo yor demal nga seeti ko bu dee da ngaa yor bolotement dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kàttan nag amu ca morom képp kum ci jàppantet ba jox la ay garabam nga jëfandikoo ko insha allah kàttan force ngay yor d'accord uh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante nii da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu la joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom uh, juróom benn fukki minute ci yoon wi te doo doo àgg suuf uh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man wala lii nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarlook docteur Cheikh Ousmane Touré am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi yi woowal docteur Cheikh Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq 50, 25. cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu tabarakallahu cheikh ousmane touré ngok léegi nag moom mi ngi nii fas yéene ñëw ak yéen tay ci lu am solo nga xam ne gis nañ ne bu koor gi jotee rek ñu ngi ciy sonn lool dëgg la baax na ci koor gi waaye du ci koor rek la war a xem loola moom la ñuy tuddee saraxe bu jotee ci koor gi koor gi bu jotee fonk nañ ko lool waaye nag après koor gi it nag loola mooy wir feebar la boo xam waruñ koo dañ ko war a faj ba mu wir mooy weeru koor weeru koor rek ngay joxe bu weeru koor jotul yow doo joxe shariatu waxul loolu de waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si benn addis ne xasinu amwaalakum bi zakati waaye wa daawu mardaakum bi sadaqati wal taqbalu anwaahal balaaya bi duaa aw kama qaal yonent bi sallallahu alayhi wa na rekk waay seen alal yi bu ngeen bëggee mu am sécurité am aaro du yàqu du sànku yonent bi ne génn leen asaka kon génn leen asaka danaa ci mos a ñëw tabaarakallaahu nee na su fekkee da ngeen a feebar feebar bi jaaxal leen génn leen sarax tabaarakallaahu yàlla teggi leen feebar booba waaw sarax bi ngay génne na waxuma la këyit waxuma la ay suukar waxuma la guru bu weex waxuma la ay sondel waaw am na koo xam ne amul yére bu baax bu mu sol demal nga jënd yére bu baax ne ko am ñaanal ma yàlla bu la ñaanalee nga waaw bu dee yeneen problème la bu la ñaanalee nga wér waaw ay daal saraxee rek nga dem jël ay këyit jël takku suukar bu juróom jël sondeel ñetti sondeel dem jox ko imaam ne ñaanal ma looloo fajur xaajo de waaw ku la wax ne la saraxeel sondeel boo génnee cinq mille day gën a baax rek waaw day gën a baax rek kon xoolal loo xam ne dana sedd xolu nit ki te dana ko jariñoo nga jox ko mu ñaanal la yàlla yonentu ne bu ngeen feebaree feebar bu leen jaaxal bëgg mu wér nee na def leen loolu xëy na sëriñ si looloo tax ñenn ñi waaw bu la feebar dalee boo ñëwee ah da ngay saraxu xar da ngay génne saraxu bëy bu ñëwee ñu rendi togu ko ci kër gi wala séddale koñ gaay lekk ba suur bu ñaanee bu la joxe benn fatiha boo ko laalee rek dox ñu ne hey sëriñ bi Sen fekk sarax ba mbir la de yonent bi waxoon na ne seen feebar yi dee leen koy fajee saraxe dégg nga mu ne bu fekkee balaa muy musiba natt bekkoor jafe-jafe xat-xat ay gàllankoor dafa bëri lool nee na bu ngeen yàlla musal leen ci dee leen ñaan waaw ah, danañ ñaan pour yàlla musal leen ci natt yeeg jafe-jafe yeeg gàllankoor yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax kon niñ fonkee saraxe ci weeru koor nañ fexe buñ ko calmer maanaam buñ calmer feebar boobu dañoo yàgg naay nag suñ feebar suñ feebar la weeru koor nag bu jotee dañ koy calmer rek waaye duñ ko faj mu wér nañ ko faj mu wér waaw nañ joxe bu weeru koor jeexee ñuy continuer di joxe loolu mooy feebar bu wér waaye calmer ko rek calmer baaxut de waaw calmer baaxut nañu faj feebar yi beneen bi yonent bi sallallahu alayhi ni muy encouragé nit ci saraxe abi horayrata moo nett li mu bi sallallahu alayhi wa maa naqasa maalu min sadaqatin qattun wala afa rajulun an maslamay ila saadahu laahu biha izzan wa ma tawaadaha rajulun ila rafa ila rafaahu laahu kama qaal abi horayra mu ne bi sallallahu alayhi wa génn leen alal waaye ngeen joxe saraxe saraxe leen waay eh, bu ma saraxee ñàkk man duma joxe laay yonent bi neen déedéet pourtant saraxe wàññiwut alal de boo joxee yàlla dalay dolli waaw yàgg nga dégg ci darsu tafsir yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jaam bi xamul suur bu muy xëy lu du ñaari malaaka nga koy topp kii mi ngi ci côté droite bi kii mi ngi ci côté gauche bi ana lan lañuy ñaan kii daf naan yalla képp koo xam ne li nga ko jox ci alal mi ngi koy partagé ak jaami yàlla yi yàlla dollil alalam jiwaay ki ne ci côté droit bi lu lay ñaan daf naan yàlla képp koo jox alalam mu koy dépassé si yoonu yàlla yàlla dollil ko alal ki ci wàllu góos bi ne yàlla képp koo xam ne jox ko alal mu téye bañ kaa joxe yàlla sànkal alal bi lii malaaka yee koy ñaan addis yonent bi nettali ko léegi nag yaay xool yow ba xam da ngay téye malaaka yi ñaan yàlla ñu sànq ko te bu ko sànkee du ñëwati de ko sànkee du ñëwati de waaw koo si gisoon ñaari mu am alal daanu lu ne dana ko sànkoo de ku ne dana ko dugal xalwa de waaw man ngaa bind alif laam miim ba minal jinnati wa naas muy sangu rek takk ak saraxee lii mu dem di lebil lu ne mu dugg ci waaye dara dara ma ko ñaan ak malaayka la moo malaika malaayka wi rek mo la mëna andil ciagat te du andi waaw waxoon na la joxe nga bañ mu téye moo yàlla mu téye ko yalla téye dara du ñëwati fo laal mo gëna dëgg bari nañu bari bari ngi ñak alal li mo leen ko yob bi ngay am di man daaw dimbali ñi nga wara a dimbali waaw wala sax daaw dimbali ah yow ñan ngay dimbali mooy bu weer koor jotee nga woo caméra site internet yi ñu ñëw kaay damay joxe ndaw amna sa mag ju sa yow rek wala sa rak jo xana mu dara ngay jël di ko partage doon gars di le filmer journaliste yi dégg nga cioli beuy ah, amna ko xamni mi ngi la jégué amul liggéey bu baax jëlal alal jooju ci jox ko ne ko demal nga liggéey ci ah, affaire yi fi ko foog donut ko ah, mbir bo démé ba bëgg ñu gis dara dootul ngir yalla ta bu dootul ngir yalla nak da ngay da ngay sank sa rek kon lolu nañ ci bayyi xel bokk yi dañuy joxe alal alal waye nañ ko joxe ta yalla tax buñ ko défé rek da nañu dolil alal bi te ëllëg buñ dajee ak moom tabaarakallaahu danañu fay waaye buñ ko def lu dul loolu rek dañuy perte waaw kon joxe yi git bëri na gaa waaye nag li ci ëpp yàlla taxul kon boo koy joxe na fekk ngir yàlla waaye bu dul ngir yàlla it amul lu la njëriñ de waaw kon nit ñi xamal ne li ñu amoon ci temps yi jeex na tey seen émission suumu tasiwu loolu la andi woon ba suba incha allah rabbi ñu duggaati génn ci yeneen thème wasalaamaaleykum wa rahmatullahi Assalamualaikum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julit yi seen mbokk seen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré wat na fii ci ndakaaru indi leen ay garab yu mucc ayib képp koo xamante ni da ngaa yor jàngoro yi nga xamante ni moom laay bëgg lim dawal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yoo xamante ni garab original la mucc ayib képp ko ko jëfandikoo insha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon sa yaram hémorroïde bu fekkee da nga yor demal nga seeti ko bu da ngaa yor bolotement ma dawal dem si gaaw bul ko wàcce new kàttan nag amu ca moroom képp kum ci jàppantet ba njox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kàttan force ngay yor euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante ni da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo ca man waa wàll li nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré moom daal am na ci garab goo xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarlook docteur Cheikh Ousmane Touré am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi yi woowal docteur Cheikh Ousmane Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def deux cinquante cinquante cinq cinq deux cent cinquante cinq cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV. ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dina ñu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne ilallahi wahdahu yanaalul maq